TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer aouzu billahi minash shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw moo sant yàlla jullu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal samay waajur jullit yépp sëñ bi sëñ Cheikh Mbacké xalifa sëriñ Ismaïla Mbacké ñu ngi lay nuyu di teg nuyu ak ziar mu gën a teddee ci say loxo lu jottali ko xalifa kër bi xalifa sëñ Mamor Mbakke borom saam muy sëriñ Abdoulahi Mbakke yàllay buur beral ñu nuyoo ak ziar ci kilifa yu tedd Mbakke Mbakke yu fi teew yépp ak ñu ñu fi teewal waaye tam euh, kilifa bu soobee yi yu fi teew tam euh, ni ñu ko waxee donc euh, nga beral ni nuyoo tam ki nga xam ne fii bu ñuy liggéey sëriñ ba moom la ñuy booleel ñu sës ak moom rek di sëriñ Cheikhouna Mbacké mi fi toog ñu koy beral nuyoo kon di ko ziar kon di jaarale ci seen loxo tam ndokkeel ci bés bu am solo bi di bésu euh, màggalu Mamour Diarra Mbacké comme ni nga ko waxoon euh, tey ñëw nañ fi gis ngeen ne maa jiite bi dinaa ko lim euh, defe naa wax nañ si sax ak Serigne Mamour Ndok am na ki nga xam ne président de la république moom la yebal waaye tey conseil des ministres bi dafa xaw a gudd ba nga xam ne. bi ñu jokkoo ak sëñ bi mu ne comme taalibe yi ak donc mbooloo bi yëpp ñu ngi fi ñu ñëw def cérémonie officielle bi waaye incha allah ku président yebal bu yegsee ñu ñëwaat dem ñu nuyu sëriñ bi comme ni ñu ko defee at bu nekk kon dama bëggoon ñu leeral loolu ah, yàlla baaxee ñu nag ñu fekk fii. ñoo xam ne ñun ak ñoom ñoo fi teewal état ñenn nii dañoo ànd ak ñoom ñeneen nii dañ fi fekkante waaye état moom benn bopp la ñii nag ñuy cër ñii di bët ñii di loxo ñii di tànk euh, ci ñooñu mun nañ ci ràññee ki di euh, Baye Mor Ndiaye di conseiller économique social et environnemental mu ngi fii ñu ràññeet itam boo xam ne yàlla moom la tekk ci commune bi fii di Serigne Abdou Mbacké Ndaw muy maire commune Mbacké mu ngi ni toog itam yàlla baaxee ñu nekk fi tey ak directeur général SOGIP SA di directeur général Galaba moom tam donc ñëw bokk ci délégation bi nga xam ne mun nañ ci ràññee ay chef de service gannaaw bu ñu cité Moussa Thiam di adjoint préfet El coobaan Thioban inspecteur bu jógee ci ak njàngale bi Hamadi Ba moom moo yor mbirum xale yi Thiendella Fall bu développement communautaire Ibrahima Gueye bu service du jeune Badara Badiane développement rural di affaire agri agriculture ak yooyu euh, capitaine Gorgui Gueye eaux et forêts Souleymane Cissé bu ASP Malick Sarr Sall donc élevage Hamadi Ba police Khadim Ndiaye donc euh, bu action sociale El Hadj bu AMO euh, ak commissaire Younoussou Diédhiou boo xam ne euh, donc moom moo jiite fii commissariat urbain donc ñu ngay wax donc sëñ Abdou Mbacké Khalifa waaw donc ñoo ngi leen bu baax ak euh, sëñ Modou Mamadou ah, ñu ngi leen di ziar ah, délégation bi comme ni ko waxee dañu ñëw fii ci d'abord bu ci def naa ëpp solo mooy tànku jullit li ñuy wax diggante jullit ak jullit ndax ay jullit lañu donc euh, ay jullit xew nañ ñu ñëw teew fii donc bu fekkee ko ñoom donc barke bu ci nekk ñu kaataan ko ñu ci am euh, di tànk tam boo xam ne. muy tànku maanaam état ñu jëmbal fii euh, état bu Sénégal rawatina président de la république ak koo xam ne moom la ñu dënk mbirum diine di ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye donc euh, gannaaw loolu mandarga bu ñu fi ñëw am na beneen boo xam ne dama koy wax fii toujours bu ma ñëwee mooy tànku dëkkandoo ndax ñun. ah maa ngi fàtte sax euh, waa kër Cheikh Omar Ndiaye donc saa yu ñëwee rek donc dañuy bàyyi xel ci ñun ak waa Mbacke ci commune bi ñun ñu dëkk ñu suñu dëkkandoo rawatina waa Mbacke Kawar mooy wax toujours waa kër Serigne Mame Mor ñoom toujours ñoom war na leen dëleen baax ndax ñoom ñoo ñu dalal administration muy préfecture ak service yi yëpp rawatina ak tam ci ak suñuy wax suñu dëkkandoo lu ñu wax ci dëkkandoo si julli lu am solo la donc dañu ñëw féddali coloré bu mel noonu waaye itam dañu ñëw ndax fii bërëb ñaan donc ñëw euh, sakku ñaan fii Euh, ci suñ tuuru bopp waaye surtout ci tuuru réew mi rawatina ñu ngi dugg ci nawet tey maa ngi dëgg taw na booru Casamance donc euh, jullit amul lu dul ñaan donc ñu ñëw fii donc taataan dinañ ñaan ñu dugg ci nawet bi ci bismillah rahmaan rahim donc mu doon nawet bu sedd bardan waaye wasalaaman nekk nawet bu barke la mu am ndox ndox bu doy waaye nañ ko waxee barke ko euh, di leen sant di ziar en tout cas di fëddaliwaat nuyoo ak euh, ziar jaarale ko donc ci seen loxo benn jotu la ko sëriñ bi wasalaam Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer